mi ngi noonu mbokk yi bàyyi xel SBT am nañu mbégte ak kontaan dañoo fi nga xam ne moom mooy Pikine fekk fi monument Pikine muy nit ku baax muy sunu grand macha allah saa yéen ko soxlaa rek mu ubbil ñu ay buntam muy grand pape sa di grand bien donc nag tey dañ koy bàyyi mu nuyoo boo defee ñëw moom ci waxtaan bi grand ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw Mass maa ngi lay nuyu bu baax a baax te nuyu tey suma site bi SBT Média di lu sa liggéey yow moom suma waay nga suma lépp nga di la ñaanal suñu borom defal la jàmm. waaw suñu site bi tey nii nga xamante ne tey man moom lii doo tàggoo da ngay ñëw rek mën na la amul problème wax dëgg yàlla waaw di la si ñaanal yàlla defal la tele bu mag a mag a mag a mag xam nga lépp loo ci ut rek xam nga suñu borom gaaw teg ci loxo waaw maa ngi nuyu tamit waa pikin bu baax a baax a baax di nuyu suñu waa kër yëpp xam nga di nuyu waa kër Lobaat yi di nuyu Benzema Cheikh Fall ak képp kuy yeewoo kër Lobaat may nuyu tamit suma xarit muy Ousmane Sakkal Dieng di maire Sakkal mhm. di conseil président de la république mhm. Ousmane Sakkal Dieng maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax nit ku baax la mhm. nit ku may taxawu la tamit maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax xam nga di jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci loxo mag képp kuy yeewoo biir Sakkal waaw Ousmane nit ku baax la ma bëgg tey waa Sàkkal yëpp jàppale ko taxaw ko mhm. parce que nit ku bëgg Sénégal la ku bëgg réewam la kuy taxaw waa Sàkkal la mhm. waaw di ko wax tey xam nga mu ngi foofu ci mairie bi mhm. may wax tey président na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que mu ngi def liggéey bu am solo ci réew mi uh-huh, may nuyu Daouda Mbow ak njabootam ak famille Mbow yëpp bépp jour boo xamante ne rek tey ñu ngi foofu muy rakkam yi muy Daouda Mbow muy suma xarit te international ancien joueur Marseille mm. rakka ji moo ma jox maillot bi mooy football Belgique maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax te mm. nuyu suñu suma ji kër gi ma fekk fii tey muy suma jigéen man fii laay nekk muy suma xarit muy suma lépp mm. di ko nuyu muy Rama Ndiaye Kumba Mbaw Khady Diouf ñoom ñëpp maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Serigne Massila Serigne Serigne ma si la maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm. le grand waaw maa ngi koy gërëm bu baax moom du prison voyageur. Mhm. fi mu yem rek la yem. Mhm. maa ngi koy gërëm bu baax Serigne ma si la ñu naan ragal pied day xañ suma xarit la. Mhm. bokkuñu fu ñu for nag. mais nit ku baax la. billaahi wal kitaabi. dañ maa tuddee drapeau. tuddee góorandooy drapeau. ma fekk ko kër góorandooy. dégg nga ñun ñoo waroon àndandoo mën a góorandooy dem stade mu yëkkate ay dix mille yu bëri. ñëw jàppale ma si bés boobu loolu duma ko fàtte mu ak yeneen ak yeneen ak yeneen billaahi te musuma ko booleeg sama benn nit bëri na ñu may tudd maa ngi leen di booleeg samay nit mais moom musuma ko booleek sama benn nit mu ñaanal ko walla mu jàppale ko kon su ma amee occasion bi sëriñ ma Massila yàlla na sa jàmm yàgg yaa xam loo bëgg yàlla na ko suñu boroom defal maa ngi la koy ñaanal nag sama biir xol laa ko tibbee di nuyu diaspora bi di nuyu waa Lyon maas nga dimbale parce man ñii may tudd nii dañ may taxaw dañ may jàppale waaw suma doom nag dafa tukki maa ngi koy ñaanal fee mu nekk muy seex muslim njabootam ñoom ñëpp waaw di ko ñaanal suma xarit la moomoo daf maa wéetal suma doom bi maa ngi koy ñaanal fu mu nekk noonu yàlla defal ko jàmm bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal xam nga yàlla na ko yàlla musal si cat jàppale ko taxaw ko xam nga di nuyu waa Pikine yëpp xam nga deux cent pour cent bi képp ku yeewoo pikin takk ngemb rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax macha allah mais dangaa tudd kenn ku baax koo xam si ni boo ko tuddee. sunu xel day dem sunu grand sunu lépp muy Matar Ndiaye la grand ménagère. di doomu ah, macha allah di ki nga tudd nii di xaritam di ndax bi nga ko Fallou Ndiaye tuddee drapeau yaakaar naa ne Ousmane Sàkkal Dieng taxaw na ko jàppale na ko macha allah keroog ku xool ni Matar ni mu dugg ci stade bi. xam ne Ousmane vraiment seetaan na ko. muy kenn ci Matar Ndiaye kon boo ko tuddee sama xel mënu ñàkk dem ci Matar Ndiaye la grand ménagère. bu baax a baax a baax muy grand ménagère muy Matar Ndiaye ah. maa ngi lay nuyu bu baax nga jàpp bu baax Ousmane Sakkal bu baax a baax a baax. waaw waaw jàpp ko waaw xaw ma woon ni sax xamante ngeen. mais dama dama jóge jógee Tiwaawoon. ñëw si ODK bu Thiès. mu fekk ma fa. xaw ma ko. mais dafa def geste. te maa ngi ànd ak milliardaire. barki Rasulullah. milliardaire laa àndal. boobu ñu ngi jóge ci Kébé. Hmm. Kébé boobu may tudd si combat booy Niang Balla Gaye bi. Hmm. fa la ñu jógee Tiwaawoon mu fekk ñu ci ODCAV bi ñuy jënd añ mu fay lépp yëkkati cinquante mille may ma fay añ bi yëpp barki yàlla fere ci ñun xaalis bu bari te mu may doo a gis kon loolu teraanga boobu nga ma defal. teraanga la maa lay ñaanal lépp loo bëgg yàlla na ko suñu borom defal. ok mi ngi noonu ñu tàmbali nag ci làmb ji nga xam si ni wax dëgg yàlla moo ñu fi indi diggante rëg-rëg ak Sa Thiès combat bi cool yi wàccaay wi enjeu bi ñi doon wax sax naan combat bi daragal naan combat bu dem waaye gis nga li may wax chaque jour gis nga làmb ji démb macha allah sécurité bu doy lépp doy macha allah ñu bëri ko ci jàmm làmb ji la may wax chaque jour ci coow lay taxawee waaye ci coow lay jeexee ndax làmb ji nu mu taxawoon cool yi bëri na waaye bi combat Sa Thiès coow li bëri avant combat bi loo jàpp ne moo waral a nga waaw xam nga tey maas. làmb moom. ak coow ànd. comprendre nga est surtout si ñaari mbër yi la. parce que soo xoolee ci signature beeg lépp mais soo xoolee ba du mu jeexee amul ku ci gaañante. xam nga lu dul li ci am mooy saisi te arbitre yee ko indi. léegi léegi laa seetaan nii sama télé xaaruñu sax. recours dugg seen CNG joxe na verdict mm-hmm. jox na Sa Thiès victoire mm-hmm. léegi léegi fii laa ko seetaan ak suñu waa kër yëpp waaw verdict bi wàcc na wan na ni Sa Thiès parce que ménagero Sa Thiès suba dugal na recours muy avant ñuy xaar recours daal seetaan nañu léegi léegi seen TV ñetti télé wane na ko wane ne affaire bi wàcc na Sa Thiès waaw décret bi wàcc na Sa am na ci ndam ci kaw rëg-rëg. ok mais est-ce que est-ce que tey war nañoo xaar ba coow li àgg foofu ba stade bi booy yi ko yàq ci ci décision bu arbitre bi jël est-ce comme démb écran géant bi tàkk na ak yu mel noonu nga xam ne écran géant bi amul kenn koy wax ci stade bi ne gisuma est-ce que juru woon démb ci biir làmb ji ñu jël seen initiative visionné ko foofu ci ci écran bi ñu xam ki daan ku nekk kuy kuy ñibbaale victoire ñibbaale victoire. dama ne la cinq arbitre moo jaratul dara juróomi arbitre ci géew. journaliste wóoru leen policier wóoru leen yéen kese yéen a nekk ci géew gi juróomi arbitre bu benn bu arbitre central bi gisul ah juge bi dina gis mais man li may wax Bira Sène di ko wax waa CNG mooy damaa bëgg ñu tëbal arbitre yëpp bàyyi fa Malick Ngom mooy xalifa général kulli arbitre làmbam musul am coow barke Rasulullah mais mais mais est-ce est est-ce que tëbal leen solution la. est-ce que solution la. solution la Moustapha Gueye daanuñu ko fi ñeenti jël ci benn tàkkusaan lan la ñuy def sans verdict ah Lac de Guiers baabooy ah Lac daan ko ba làmmiñ bi takk suuf ñu def ko sans verdict ñun ñëpp ñun ñu indi baabooy sax xam nañ làmmiñu baabooy sax takk na suuf du dëgg. ñun ñii ko indi. keroog ci làmb ji xam nañu ni ba la dëgër da koo daan ba làmmiñ bi takk suuf. ok dégg nga loolu moo war a jeex ci làmb. ok nga li may wax ci CNG mooy recours la ñu war a dindi parce que tey licence simple da nga koy jënd licence d'or da nga koy jënd da ngay dagg assurance frais organisation yooyu dafa war a doy dégg nga écran géant bi ñu taal ko suñu su site amee ñu ñeent juróomi arbitre bi yëpp jàkkaarlook écran géant bi. balaa ñaari mbër mbëri di génn ci géew bi ñu yëkkati kenn loxoom mu dem. ki ñibbiwaale victoire ñibbiwaale victoire ñibbiwaale victoire. Ah. loolu mooy dëgg. mais lii nii du ñu génn ci soo moytul ci dër la support la la la amateur yi di toogati. parce que de desatu fi maa ngi koy wax nag bu ñu dagg benn mbër ci affaire u seize parce que ñoom ñoo ko indi bi yoon su seize yi dañee lii du yoon de dagg seize yi du yoon de mais barke Seydina Mohamed ñoom ñoo ko créé ñoo indi tax ba seize yi yàqu parce que tey. lii nii chaque jour nañ ko éviter buñ man déggool ma nii sa man su ma nekkoon comme baaba jaxal boobu ñëw indi suude di suude seize sama licence laay xotti dem Europe dama dul suude benn seize voilà parce que da ngay xool mbër yi rek la ñuy sanctionné mais arbitre démb bi nii lan lañ ko war a def dama ne la man laa la wax bu ma nekkoon président CNG di toog làmb li des ci làmb dootul amati juróomi arbitre Malick Ngom kese laay jox muy arbitré ma jël salaire u arbitre yëpp di koy fay Malick Ngom. barke Rasulullah laa la wax. mais benn arbitre arbitre su ne day métti dama ne la benn arbitre di ko arbitré moom kese laa la wax. moom Malick Ngom mu xale la mun na ak attan na lépp billaay wal kitaabi maa ngi dégg ñu naan ay arbitre dañ leen di jàpp si gàllaaj ak yooyu yooyu yëpp amul man nanguwuma ko. gisoo ne arbitre démb dañ koy nelaw. kenn nelawul ko dara kenn nelawul ko dama ne la ñu jël événement yu toll noonu nañ koy jox ku ko attan ku mel ni Malick Ngom. Malick Ngom defaluma fukki dërëm mais damay dama yàgg ci làmb di seetaan ay combat am yoo xamante ne yëpp day egg ci yoon mm-hmm. day xool bu baax li muy def parce que arrangé wul tamit CNG man Bira seen suma xarit la képp ku nekk seen CNG samay xarit lañu mais bu heure dëgg wax dëgg jotee bul sonal sa bopp bul sonnal sa bopp. ok léegi li ma bëgg mooy ñu ñëw ci biir combat bi entre Reug Reug ak Sa Thiès bi arbitre bi sifflé tey euh, maam cër bi ñu joxante ñu ni ñu signé ñu signé woon mu mel ne def nañ bi ñu ñëwee kenn ku nekk def nga la ñuy wax round d'observation xoolante. Hmm. mais ndox lu bàyyi yoonam Sa xaar na ko comme Reug Reug waxoon na ko dix komba dama lay daan Sa xaar na ko ñëwut Sa dem. non xam nga ñoom ñaar dama dama jàppoon man sama bopp Sa mooy bëree signature mais démb Reug moo bëree signature moo bëree waaw moo bëree signa waxu signature moo ko bëree te man waxoon naa ko nee naa leen bëreetu Sa Thiès bëreetu Sa Thiès tant nekkoo gaynde doo ko mën a tenir doo ko résister ba pare arrière boobu dellu ginnaaw boobu rëg-rëg def moo yàq làmbam ak teel summeeku gis nga famille duubal lees boobu noonu booy bëreek ñoom nga njëkk leen summeeku sumeeku néew nga <laughs> doo leen a xam ay ndaanaan lañu waaye boo leen njëkkee summeeku dootoo ko defati. dootoo ko defati dootoo ko defati mukk. parce que soo xoolee avant rë Sa Thiès di dugg ci géew bi. rëg-rëg summeeku na. avant muy dugg ci géew bi rëg-rëg summeeku na di soow la xaw ma daw ba ci loos. ñëw man la sarax suukar bi. pañe bi mooy suukar bi ak mooy ku jigéen ki ma àndal moom la ko sarax. bi mu wonee ginnaaw laa ne oo oh, kii yàq na lépp waru woon teel a summeeku waaw. ñu gis simeeku lu yàgg jékki-jékki wow mais duggaat ci mukaayam. waaw bi mu duggaatee dafa dem wàccu ji. dafa dem wàccu. ah na ko dem dafa wàccu. waaw. kon lamb ji dem garaaw na fa leer laa lay wax. mais même Sa Thiès gis nañ ci biir lamb ji mu génnaat lamb ji jël oto dem. waaw non dama ne la. ji day dafa garaaw. mais démb gars yi làmb lañ. <laughs> akamaa xam ne nag dégg nga xam nga yàlla dafa def ñun dañuy veillé foofu. yan sa man foofu laay waxtaanee mooy bunt bi féetee ne la. mel ni ah. luy dem marché cinq. waaw film laa <laughs> film laa daan gis foofu guddi gi. <laughs> damay ree ba sonn. waaye nag oh lii nag du sama bés quoi <laughs> lii bu nekkoon sama bés rek bu neex mais damay dañ doon see film ah, ay affaire yu garaaw làmb dafa garaaw de. balaa nga koy xam nga dëkk arène nationale. wala ngay fréquenté këru arène nationale yi nga tiim foofu lu fay xew guddi da ngay xam ne làmb du jour làmb kese de. lu le dañoo làmb nag ñii dañoo làmb barki rasulaay muy muy kaawu Balla muy kaawu Sa Thiès di kaawu Reug Reug dañoo làmb démb dañoo làmb billaahi wallaahi wa taala mu mel ne avant arbitre bi sifflé ñoom ñaar si côté ambiance yaakaar naa ne amateur yi seen xol sedd non ama démb moom wax dëgg yàlla amateur yi mandi nañu làmb mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. amateur yi moom seen xol sedd na xam nga ambiance am na lépp am na li gën a may confiance nag Sa Thiès mooy teewaayu Balla Gaye teewaayu Balla Gaye mu ñëwee sax teg ci surtout fi mu ñëwee. fi Balla ñëwee. fi Balla ñëwee beneen voilà waa teewaayam boobu noonu. daf ci lu garaaw. léegi nag gars yi ànd ak Reug Reug concentré wu ñu si Reug Reug dañoo topp Balla Gaye rek xam nga. Hmm. topp ko def noonu. noonu non sa mbër mbër bés yu mag yi ah da ngay concentré wu si sa mbër. Hmm. xool heure bi nga war a sumeeku. bul lijjanti kenn ku la sotti saw sax muñal ko. voilà. ok mais comme li nga wax nii niñ concentré ci Balla Gaye bëri ba boo xoolee sax am na image bu ñu wane. am koo xam ne Balla Gaye nga xam ne dafa taxaw noonu rek mu ñëw doxe gannaaw wéq li nga xam ne moo nekk ci loxo ndax nen la ba mu toj ci loxo. waaw parce que det maa ngi seetaan léegi-léegi rek rek nee na Balla Gaye a loolu yëpp làmb la rek loolu yëpp làmb la waaw may wax sax image yooyu noonu jarul ñu koy génnee quoi léegi nag man li may wax mooy maa ngi koy wax liiru jaan dimbalil ngir yàlla xaadim njaay waaw su lii làmb la woon rek. mais wax dëgg yàlla Sénégal yëpp ñu ngi koy monteel ay xajak yooyu noonu. Mm. te waaw nit ku nit ku teg nit ku nit ku nit koo xamante ne mënoo tudd turam di ci di ci jublu. yenn yi yenn yi. Mm-hmm. ba dem nañu ba ne xaadim rek. Mm-hmm. waroo ci teg leneen. Mm-hmm. xam nga nañ même bu ñuy def seeni i vidéo nañu wax ngóor si wala leneen mais xaadim njaay jël xaj di def di wax loolu. comme moom moo ko waxoon maa ngi koy ñaan képp kuy supporteru Sa Thiès mhm. man de maa ngi koy ñaan ngeen jéggal ko mhm. parce que fi mu toll nii mënatoo seetaan dara. a xaaj la wax xaaj la wax xaaju nag la wax. waaw xaaju eh, ginaar yéen laay wax. waaw Xaadim waxul xaaju xar xaj. xaaju ginaar la wax kon. waaw jàpp leen jàpp leen ci rek ndeysaan. billaay wallaay damaa dem ba waay làmb daal mu ngi noonu. Mhm. làmb daal mu ngi noonu. te xam nga làmb ji boo xoolee liiru jaan ak euh, sunu sunu papa Xaadim Njaay dañoo jox làmb ji sarm jox làmb ji gëdd jaay làmb ji vraiment donc ñu xam ne cadre sport la parce que ñun def moo tax làmb ji dem xam nga combat Boy Niang Balla Gaye man ak liiru jaan ñoo ko jaay ñun ñoo ko jaay ñëw nañu comprendre nga fële Dakar ma génnee benn parfum ne ko dama lay pompe à gaz ak affaire yooyu noonu comprendre nga est-ce que Lamine yuuxu yee pomp à gaz affaire yooyu fekk après ñooy ànd dem ñibbi mhm. du dagg ay nante dañuy toog man damay ñëw ñu waxtaanoo ko ba pare doo ko dóor mu dem. lépp dañuy waxtaan. comprendre nga. noonu la dañ dañ doon jaay làmb ji xëy na bii nag dafa dafa ëpp daal. dafa saf daal dafa saf. <laughs> dafa saf ma koy ma leen di may encourager parce que tamit dama ko seetaan. Hmm. léegi léegi. Hmm. lii ma seetaan léegi seen TV hmm. nee nañu affaire yi wàcc na jox nañu Sa Thiès victoire. mais démb Sa Thiès xeex bi mu xeex Reug Reug noo ko gisee. non Sa Thiès kuy raté penalty la xeex bi baaxul déggoo man dama leen ko waxoon ñoom ñaar ñëpp duñu ay xeexkat te ñoom ñaar ñëpp dañoo jël coup kaawo ñoom ñaar ñëpp mais kaawo Reug Reug moo gën a leer mais Sa jël na coup bu mu warul jël waxoon naa leen bu du diire cinq minutes bu diire woon cinq minutes Sa day ñàkk làmb ji voilà la moo tax dam koo xam rek su yàggoon du baax ci moom te bu ñu jàppante woon jàppal ma jàpp rek billaahi fii la ñuy fanaan voilà. ok mais est-ce que comme ni gars yi waxee démb mystique est-ce que démb làmb ji jàpp nga ni mystique fenn si. non gisuma ci mystique maa ngi gis ay vidéo sëriñ ñu nekk si kaw tribune bi di wax du ñooñu ñooy maye ndam yàlla suñu borom mooy maye ndam mus ngaa gis yow mus ngaa gis sëriñ la sëriñ Masila. nekk ci kaw tribune bi di ja di jee film. mus nga gis borom daaru di jee film. ay film laa doon gis démb ci tribune bi. ah kon dafa am ñuy ñëw ñuy jee film loolu jee su mu leen gisee si kaw estade man damay naan ñii ay jëkkëtu film lañu. barke Seydina Mohamed wóor na yàlla. mais première site bi. premier site bi moment bi premier site bi est-ce que ci premier site bi noonu comme ni coow li bëree noonu est-ce que moment boobu arbitre bi war naa mën a gis site bi. non da koy gis parce que xam nga ci premier site bi euh, bi Sa di wane ginnaaw écran géant bi mu ngi wane affaire boobu juróomi arbitre dama ne la juróomi arbitre ñoo fa nekk balaa ñuy dañ dañ leen di woowaat bu ñu leen di woowaat ñu xool bu baax xool écran géant bi même benn arbitre bi. juge bi mënoon na saale xool écran géant am dina xam ne kii nii xam nga am na lu xew. am na lu xew. Mhm. ñu bëri ñu arbitre bi sifflé waat ñu continuer action bi continuer ñu ñu delloo bu mu ca mboy mboy ga Sa Thiès nekk la mu nekkoon Reug Reug nekk gëm lam gëmoon mooy dama koy songaat dama koy daal. daal non day ba dañuy bëre loolu waxoon naa ko dañuy bëre maa ngi dégg sax Sa Thiès ne dafa dafa bàyyeeku. non non bàyyeekuwul de non non bàyyeekuwul parce que bañ na bi mu koy bi muy jël tànk bi noonu di ko dajale. di ko dajale kii mu ngi bañ Sa mu ngi bañ daan na ko quatre appuis mais comme wax jooju mu wax noonu hmm. maa bàyyi mu daan ma non non loolu amu ci de. voilà def na tout ba Reug Reug daan ko ci deuxième site bi mais wax dëgg yàlla premier site bi ñu gis hmm. Sa moo am ndam ci kaw Reug Reug. ok hmm. benn tàkkusaan ñaari jël waaw doy na waar de yéeme na de mais du du fi gulet. du fi def na ko benn tàkkusaan ñeenti jël. <laughs> Yékini moo ko fi njëkkee de benn tàkkusaan ñeenti jël Yékini moo ko fi njëkkee lii du guléet de. combat Yékini Balla Gaye benn tàkkusaan ñaari jël. waaw benn tàkkusaan ñaari jël Balla Gaye Yékini mais Balla kii Yékini Tapha benn tàkkusaan ñeenti jël la. ok mhm. ok euh, tey Sa am ndam ci kaw Reug fu mu mën a yóbbu. Bombardier Bombardier nee na la xiif. combat bu jaadu la. bu jaadu la. Mhm. à borom takk ci rëbb. Mhm. vainqueur de Bombardier. waaw su fi Eumeu Sène nekkul woon sax. mais day bëreeg magam moo tax. ok te mënul jël rakk jël mag. loolu daa war a leer. Mhm. non non du kii day kii Eumeu Sène dem na màkk na bëreeg Balla Gaye rek dem jaamu ju yàlla. mais doo ko bàyyi may na bë na bëreeg na bëreeg Balla Gaye dem jaamu ji yàlla. waaw borom daf du wér. waaw na dem bëreeg Balla gay ba pare jaamu ji yàlla est-ce ñu dinañu bëree ñoom ñaar. est-ce que ñu bëre. est-ce que promoteur waxul kii. Hmm, xaw ma de mais est-ce que dinañu bëre yaakaaruma ko de. est-ce que du ñoom ñaar xaw ma après après Forza ak euh, ak ak ak kii ak Franc. Hmm. yaakaar naa moom la ciy teg après nag ubbee saison diggante booy Niang 2 ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo. waaw loolu tamit mun na nekk. ci li ma nekk ci li ma mais ba ba Eumeu Sène mënul jël rakk jël mag. loolu noonu loolu da du ja ñun duñ ko nangu sax. loolu du yoon sax day bàyyi ba nga génn ci lii xool leneen loo def. waaw mais dama bu génnee ci combat ma génnee bi daal yàlla na ma yàlla def ma nekk ci leneen saa may nekk di wax ci làmb ko ok yàlla na fekk may def nekk ci leneen. nekk samay projet. Mhm. mais mais mais à part Tapha Tine ak euh, ak ki nga xam si ni moom mooy Bombardier war naa mën a am combat revanche diggante ak Malick Niang non ma Malick Malick Niang Malick Niang moom gisatuma ko mu bëri moom non combat bu Malick Niang moom gisatuma ko mu bëri mais Malick bëri Pape non ah lu muy def gaa yi bañ nañ ko jël kay defar la am benn defar dafay waaye mu ngi si business su ay otoom ak yooyu noonu ah, mu ngi lijjanti boppam de Malick Niang est-ce faale na làmb léegi faaletul làmb de mu ngi ci ay business boppam képp ku bëgg moto cinq million yeeg yooyu noonu oto yu baax soo demee ci moom mu jaay la de mu ngi ci leneen Sa daan ko fu ko mën vainqueur Franc Forza. fa lay xaar bu nekkee bu nekkee li ma seetaan ci tele bi dëgg la. Mhm. ah xaw ma. Mhm. bu nekkee Sa Thiès da koo daan. Mhm. li may seetaan nii ak li may wax. vainqueur foofu lay xaar. vainqueur Franc Forza foofu la lay dugg. ñu ne ñu daa war a daa war a bëre. Mourou Anta tamit na ko promoteur yi gestu dafa war a bëre moom it mu wàññi ka mu wàññi kii waaw mu wàññi affaire yi. nooyal mu nooyal affaire yi Mourou Anta nooyalal affaire yi gars yi ñëw. mais laaj da war a bëree. mais laaj waat rek tamit war nañu. wax dëgg barke Rasulullah yi. moom it war a bëree moom it moom war a. Thiès ci Sénégal la bokk. Thiès ci Sénégal la bokk. capitale de rail nañ leen gestu ay champion ñoo fa nekk. benn dëkk ñaari gaar. waaw sama jarbaat moo mu ngi fa Omar xale màgg na. champion bu mag la. ok dégg nga booy jaxaaw. ay ambulance ay ambulance nan promoteurs yi gestu waa Thiès waaw. waa waa promoteurs yi nekk Dakar fii gestu leen waa Thiès ñoom ci làmb lañu bokk te dañuy du ñëw di fi indi ñaari kaar ak ñetti kaar ay biis la ñuy ñëw dugal ko si stade bi fii mm-hmm. xam nga Modou Anta tamit bu nekkee yow yaa yow yaa yëkkati prix bi nga wàccee prix bi man suma frère nga nga ñëw bëri si. dégg nga ñu may bébé jén chance bébé jéen na ko na ko mag ñi may chance waaw waaw maa ngi koy ñaanal jàmm moom it waaw mu gën a defaruwaat parce que liy topp ci ginnaawam gisuma benn mbër bu ndaw buy topp loolu ci ginnaawam mm-hmm. gudd yuñ toll nii bébé jén na ko mag ñi may chance loolu mag ñi na ñu may xale yi chance dégg nga mm-hmm. may ziar tamit suma xarit suma mbër suma xarit suma lépp la xam nga muy Latjoor bu da géejawaay. Latjoor maa ngi koy gërëm bu baax maas. waaw Latjoor tamit xam nga géejawaay tegaat leen ko loxo bu baax a baax. Hmm. Hmm.